yes voilà bok, voilà voilà à vous de choisir j'espère que vous allez bien Je vous di bégee di leen Dylan bu baax comme d'habitude vous êtes en compagnie de votre grande chroniqueuse borom 221 Kenza 221 et la leen ak jàmm ci suñu chaîne YouTube Kenza 221 mais bien sûr la chaîne des news la chaîne des plus belles chroniques mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game donc yéen ñi nga xamante jusqu'à présent vous vous êtes pas encore abonné man j'aimerais bien savoir gars yi lan xaar pour abonner au fait dama ni abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos balaa may dugg si ci euh, sujet bi j'aimerais bien vous demander pardon ci weeru koor gi balen ma ak baal naa leen yàlla nañu yàlla boole ñu ko ay at yu baré baré bare vous jouez à 1xBet, n'oubliez pas d'utiliser mes codes promo KENZA221 ou KENZA. C'est écrit en majuscule et c'est collé. te dina leen permettre gagner un bonus de 150 000 francs pour le premier dépôt Si tamit vous ñi nga à Melbet vous pouvez faire à chaque fois d'utiliser utiliser lii di code promo KZ221 Pour tamit di un bonus de 200% pour le premier dépôt jusqu'à 200 000 francs CFA donc si vous de jouer, daw utiliser samay code promo alors sama gars tay nak nag dama ñëw pour faire part de constat constat bo xamante ni dama ko analyser du coup ma ne ñëw partager ko ak yéen après ngeen mën joxe seen xalaat ci commentaire yi parce que nak comme ni ma koy faral de waxe à chaque fois yéen seen xalaat dama koy soxla bu baaxa baaxa baax ndax mën ci jangat lu bare bare bare. man yéen rek lay top, topuma keneen donc le constat que j'ai fait concerne ki nga xamante modi moo di Omzo Dollar bon mi fa. On sait tous que Omzo fait partie des artistes rappeurs les plus talentueux, les plus techniques, mais aussi les plus pertinents. Omzo artiste le a xamante que pour nga il faut que nga doon crack il faut que nga une culture générale mais aussi il faut que culture hip hop. il faut nga sonal sa mind bi def des recherches de gauche à droite de Google de FIP, rien que pour une réponse exacte concernant ce que nga bëgg le pourquoi Parce que ses lyrics sont très et très profonds, texte de feu riche. Techniquement, il est doué, mais lyricalement, ce mec est très très très fort. Et ci ay texam da ngay sentir ne qu'il est très bien instruit Manam dafa jang, am culture générale mais tamit am na li nga xamé culture hip hop. mais bon sama gars est constat bi nga xamante ni mom la def ci Omzo dal moy il a l'habitude de jël ay références ci ay légendes. Et bien ensuite bi ci gën référence que nga avez Omar Penn. Omar c'est un chanteur sénégalais ba à l'international il est très connu mais la question est pourquoi Omar Penn genre Omzo Omar Penn c'est son idole wala Omar Penn game ci tamit Omzo ak ki nga Omar Penn dama gis ni à chaque fois wala euh, yenn saay du chaque fois lay doon dañuy nuru ay titre sound bokk tamit même durée te boo leen xoolee ci album Saay Saay Poésie le premier titre est au nom de Omar Pène foofu nag dinaa fa parce que dafa am tuuti lu fa xaw a kodew donc dinaa leen ko expliquer. léegi nag sama gars yi ce qu'on va faire mooy damay ñëw expliquer leen lan moo waral ma mentionné ci tur ki nga xamante ni moo di Omar Pène ci constat bi nga xamante ni moom laa def ci Omzo Dollar donc 10 ans ci ginnaaw. Omzo Dollar génne woon na benn sound bo xamante ni c'est intitulé yóbbaale ma durée lu tolloog 5 minutes mais à ce qu'il paraît ki nga xamante tamit modi Omar Pène génnee na ben sound bo xamante ni c'est intitulé yóbbaale ma durée tamit le tolloog 5 minutes. Xamna du ñak ci yeen ño xamé dinañ non mais c'est une coïncidence par contre man je pense pas que ce soit une coïncidence lu tax ma wax ko moy mom la leen di expliquer ci ligne suivante yi donc écoutez-moi très bien. Omzo Dollar tamit génne woon na fi benn sound boo xamante ne si intitulé agresseur bokk ci projet mbii di dëggantaan mais kii di Omar Pène tamit génnee na benn sound boo xamante ne c'est au nom de agresseur te ñaari sound yépp ñoo tolloo même durée muy 4 minutes par contre les contenus n'étaient pas les mêmes parce que Omzo Dollar ci wàllu mbëggeel la doon wax mais ki nga xamante ni moo di Omar Pène ci agresseurs yi la doon wax genre ni nga xamante ni agresseurs yi moom la ñuy dundee dafa bëgg xaalis te ñemewul coono agressé rek lay def. mais nag gars yi duñ ci yem parce que kii di Omzo daal génne woon na benn sound boo xamante ni c'est intitulé àndandoo bokk ci projet bi nga xamante ne nii c'est au nom de bët ak làmmiñ

gars ba ci album bi kii di fait dafa sound au nom de nité mu nekk sound boo jeu de mots nit euh, humain parce que bon humain mooy nit mala animal mala mooy animal ci olof mu nekk sound boo xamante qui duré 4 minutes mais ñu gis ni tamit di Omar qui génne sound boo de nité alors sama gars gis ngeen que na len li nga constat que la plupart de ses sons référence ci ay et ci remarqué ki Omar PEN donc constat bobu la def pourquoi pas ma sous forme de vidéo partager ko ak après ngeen le premier titre de l'album Saï Saï Poésie est au nom de Omar Omar comme son prénom parce qu'il s'appelle Omar mais Penn comme BIC pas peine comme nom de famille mais peine comme big et buñ déggé big rek automatiquement war nañ mëna xam fu muy waxé genre il veut juste nous faire savoir que mom il est un écrivain dafa mën lu muy def day bind bind mu taru bind bu nice bind mo xamné boko déggé ko tag tu te dis wa mais ki fan lay inspiré wo day doon problème ci yow en fait lolu c'est pas la première fois ma koy wax parce que ku ne xam na ni Omzo Dollar pour nga xam fu muy waxé foog nga sonn soog mëna xam il est un écrivain loolu mom, dañ ko koy nangul et mën naa ne loolu bokk na ci tax mu jël album bi tuddee ko say poésie bu poésie ñun ñëpp suñu xel day dem ci ñi nga xamante ni mooy les poètes donc mom il fait partie des poètes je pense bien ce qu'il veut dire. donc sama gars yi mi ngi noonu wax leen seen xalaat ci commentaire yi noo leen gisee Omzo no référence yi nga Omar sound yi nga même titre même durée à claviers donc n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker ku ma je suis sur Instagram sous le nom de Kenza officiel ma page Facebook bien sûr Kenza 221 sur TikTok Kenza national et sur Snapchat Kenza Diallo gros bisous à vous love you all à la prochaine